ànd démb ak waa Benno Bokk Yaakaar xaw na ñoo sonal lool ki nga xam ne mooy Ahmed ay yéen a kaay gii di réew mi quotidien moo xëy dañu ko xibaar yéen a kaay gii di Les Échos nee na nag bu ñu waxantee dëgg li nga xam ne moo xew démb ca Géejawaay doy na waar xeetu doy waar goo xam ne fu ko waay natt daan na koy passé ndax ñi nga xam ne ñooy gëm sa bopp ak waa wàllu Sénégal dañoo trahir ki nga xam ne mooy Ahmed Aïdara dañoo wor waa yeewi askan wi yéen kaay gii di la quotidien nee na benn Bokk Yaakaar ni ki démb dafa tibba tibba tibbu ba doyal ci li nga xam ne mooy adjoint au yi yi Ahmed Aïdara kay jamono ji dañu koo surveiller ba maara de tali maanaam haute surveillance a kaay gii di libération nee na waa wàllu Sénégal ak waa gëm sa bopp dañoo ren yeewi askan wi démb ci conseil municipal bu ville bu Guédiawaye démb la ko doon voté yéen a kaay gii di réew mi ko di jaay ci xalim ak Assane nee na li nga xam ne xew na ni ki démb Guédiawaye ci bi nga xam ne moom la ñuy taxawal bureau municipal bi ak nag opposition bi ni nga xam ne moom la ñu xàjjali koo woon loolee rek war naa tax opposition bi jéem a nekk benn yéen a kaay gii wax ci engrais bi nga xam ne dañu koo sàcc fan yi nga moom la génn ci port bu ndakaaru engrais boobee nga xam ne dañu koo sàcc nag ca port ba bi ñu ko xaymaa toll na ci ñetti milliards yéene kaay gi nee na bi ñu mandat dépôt ki nga xam ne mooy Ndeye Nacy Niang mi nga xam ne mooy actrice principale bi jiite société transcontinental transit am na ñeneen ñoo xamante ni maanaam tudd nañ leen ca détournement boobee sa sàcc googee am na ñu si tudd nag yéene kaay gi moom soxna sosay ginnaaw bi ñu ko mandat dépôt la woon waaye nag tudd nañ frère am bii nga Aale Ndiaye moom tamit tudd nañ ko ci lu jëm ci wàllum sàcc googee am na ko tudd Aliou Diouf Lambaye moom tamit tudd nañ ko ci lu jëm ci wàllum sàcc googee ak ku tudd Arona Ba yéen a kaay gi di Vox Populi xëy nag wax ci njëg yi nga xam ne Macky Sall daat nay wax ne dañu koy wàññi waaye ñi nga xam ne ñooy waa inaakuwaa jàppo nee ma commerçant yi ñoom dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa nee nañu nag lii daal toog ba mu neex la daal nga naan wàññi naa njëg yi loole dafa yomb loola yéen gi nee na nag ñi nga xam ne ñooy commerçant yi xotti nañ li nga xam ne mooy arrêté ministre bi yéen a kaay gi di enquête nag lébu yi lébu yi mer nañu lool lool lool lébu yi nga xam ne ñoo nekk ngor lébu yi nekk barñi lébu yi nekk am lébu yi nekk Rufisque jamono ji mer nañu nag dañuy sàkk mooy seen suuf ñu daal leen koy joxoo yéen a kaay gi de la Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu guerre bi nga xam ne moo am ca diwaanu Ukraine Sénégal nag daf cee raxasu ba set si wecc wecc wecc ndax nag bi ñuy voté ca diwaanu ONU ngir nag ñan a contre Russie Sénégal daal dafa tëddee njaaxanaay maanaam Sénégal dafa maandu ci mbir mi yéen a kaay gi de Dakar Times nee na nag bu doon nag football la ñu ne Sénégal militaire lay football ndax jëm ci wàllum vote gi ana ñi contre Russie Sénégal moom contre Russie àndut ak Russie xam sa bopp nag ci jaamu yàlla bokk yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Barthélémy Dias jamono ci ma ci guddi gu sitiku la ndax nag lu jëm ci wàllum atteem mbiri Ndiaga Diouf yi démb la ko doon atte ci tribunalum Ndakaaru waaye nag parquet bi procureur nee na nañu ko tëj lu toll si juróomi ati kaso bàyyi Ndiaga Diouf ah, di laaj Barthélémy Dias lu toll ci cent a kaay ah, ma ngi jafe-jafe en tout cas mandaam bi mandaam bi menacé wu na de boo mooy tuule nag li nga xam ne moo daloon Khalifa Sall mën naa dal Barthélémy Dias ndax ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak Barthélémy Dias ñoom nag ñoo ngi yuuxoo nee nañu nag ab complot la ñu bëgg a def maanaam règlement de compte Barthélémy Dias ci Vox Populi nee na na seen xel dal gars yi li nga xam ne moom la ñu bëgg xam naa ko waaye munta jàll du jàll na seen xel dal yéen a kaay gii di nee na Barthélémy Dias lu toll si juróomi ati kaso yéen a kaay gi di attention attention Barthélémy yéenekaay gi di xëy duñu xibaar naan ñu dossier Adji Sarr Ousmane Sonko bi nga xam ne sulliwaat nañ ko ak dossier Ndiaga Diouf bii nga xam ne sulliwaat nañ ko ba wax nañu tëj Barthélémy Dias lu toll ci juróomi ati kaso bi nag li nga xam ne gis na ko mooy état bi waaw maanaam nguur gi pouvoir bi ñoom jamono ji nag dañoo bëgg a sànk Barthélémy Dias ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yéenekaay gi di Le Quotidien xëy ci événement marché mbiri ñàkk ci seen bakkan te léegi nii amuñu kenn koo xam ne moom la ñu wax ne moo def googale giraawaale yi yéen kaay gi ne na diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñoom ñaar waaw kan moo si nag tiit li nga xam ne mooy ab procès loolee ab laaj la boo xam ne journal bi de la Tribune moo xëy di ko laaj yéen kaay gi de la témoin nee na en semaine la woon boo xam ne tàngoon na jër amoon na lu toll ci fukk ak ñeent ñoo xam ne faatu woon nañu si am na lu toll ci juróom benn yi nga ne moo amoon